internautes yi dal leen jàmm la famille libérale si ab retrouvaille lu mën a nekk la nee ñu nag Karim Wade ma nga ca euh, li nga xamante ni moom mooy nag euh, waajtaay ngir daal di rejoindre Macky Sall ginnaaw ab majorité confortable mooy nag euh, bëgg-bëgg bi nga xamante ni moom la camp présidentiel daal di nag am tax na nag daal di ñu nekk sax di xalaat ci ay moyens ngir naat si jotee et le fait que nag Pape Diop daal daal di porter le nombre de députés bu majorité bi à 83 daanaka nag euh, doyul benn yoon coalition benn bokk yaakaar bu ñu sukkandikoo ci nag ay experts yoo xam ne ñu ngi koy analyser ak waa Sénégal seet ña bind article ba ne nag même médiateur yi nga xam ne dañu daal di nag woolu Pape Diop ak Idrissa Seck ñu rejoindre camp présidentiel bile am na ñu liggéey nag boo xamante ni moo ne seen kanam ndax seen dernier retrouvaille dafa doon consister euh, ngir grandes retrouvailles libérales ngir convaincre euh, doomu Wade bile Euh, nekkee nag ca fële nga xam ne moom mooy ca Doha ca Qatar mu rejoindre Macky Sall et ce en contrepartie retouram ci réew mi et sans mise en scène politique euh, ces mêmes médiateurs itam di ñu xamal ni également maître Abdoulaye wadd euh, nekkul nag à l'écart du deal et que itam dañu nekk di jeexal vers des retrouvailles PDS Benno bu ñu sukkandikoo ci tribune PDS bu Karim Wade dafa nekk ci yoonu pour rejoindre le Macky dans le plus grand secret et itam ci turu ay intérêt yu Karim Wade loolee di ñu affirmer ikam ne résultat bu négociation directe yi daal di am en ce moment entre Karim Wade et président de la République Macky Sall euh, par représentant interposé maître Abdoulaye Wade daanaka magget na waaye Karim mooy piloté depuis Qatar bi nga xam ne moo fa nekk parti démocratique sénégalais moo waral sax jamono ji ñu bëri ci ay nit nag ñu faree ca biir parti démocratique sénégalais yi ay responsable Karim moo toog fa mu toog ca Qatar xale bu tuuti yor pion wam la papam di def ak di ko wax lépp moom moo koy daal di décider derrière ñoom ñu ne nag lu ni mel la ñu ne du ñu ko bëgg ci daal di nag déggati wala bokk ñu koy bëgg euh, daal di euh, euh, nag commenté wante nag fu mu toll ni jàppaleen ni Karim Wade moom mën na lu mën a nekk la ñëwaatam fii exilam ngir mu génn ci ndax exil forcé la nekkee waaye ngir mu daal si nag génn faaw mu accepté daal di nag dem fekki ji waa nag beneen famille libérale ba muy nag waa Benno Bokk Yaakaar bokk na ci Macky loole bokk na ci ay conditions yoo xam ne dañ ko ko tegal jamono yi ngir su bëggee duggaat ci seen politique bi daal di nag ñëw te sax mën na ci am ay ndombay tànk yoo xamante ne nag yu mu mënutoo woon am sax ci camp opposition bi Macky dina noppi lépp rek ngir mu indaale ay nag député ci nag euh, bile législature bi nga xam ne moom la ñu jëm muy quatorzième législature indaale ay député ba tax sax mun naa nar am nag euh, mbir euh, moom le loole mooy xalaatu ñi nga xamante ni ñoo daal di fare ci nag ay nag wàllum analyste analyse politique bokk na ci Sénégal set ñoom itam li ñu mel la ñu daal di teg comme analyse ne Macky moom fu mu nekk nii jënd ay député jaral na ko lu ne. ak ñi naan pepe kale reefaan